waaye ni ko noonu siiwal TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare bu baax a baax di amaan mbégte dellusiwaat ci xam ne ñu ko doon ànd ak yéen diiru bu wooru koor ba léegi tey nag ñu nekk ci guddi fukki ñaar fukkeel gi ak benn guddi ñaar fukkeel ak benn ni nga ko waxoon suñ guddi bi ñuy wax naafile démb gi muy fukki fan yu mujj yi nga xam ne daa làmboo ngeneel ndax ci la weeru lay taxadal nekk waaye mooy fukki fan yi nga xam ne ci la ñuy gorelee ci sawara yàlla suñu borom boole te defañ ci tawfiix fukki fan yi fukki fan yi ak benn nag euh, Euh, sëriñ bi wax ne képp ko xam da ci julli euh, mu julli ci ñeent rakka naa fi mu julli ci ñeent rakka faatee benn yoon qul huwallahu ahad ñaar fukki yoon ñu baamaat ko ñeent rakka rakka bu ci nekk faatee benn yoon qul huwallahu ahad muy sóoratul ixlaas yi ñaar fukki yoon mu wax ne képp koo xam ne def na ko mel na ni koo xam ne dafa moomoon addina ak li ci biiram jël lépp dundalawaat ko ci yoonu yàlla addina ak li ci biiram jël lépp dundalawaat ko ci yoonu yàlla mel na ni it ku jàng ci ay ngëneel mel na ni ku jàng al injiilu jang tawret jang zabur ni ko non jang alquran alkarim te bu genn aduna dana dana set wi ci ay bakkar ba melni nga xamé non la ko ndayam juré won ci ñak ay bakkar no ngi ñaan suñu borom tawaka taala mu def na tawfiq bal bañ man ko taxaw ci genn jaar rafet aw taxawin te mu nangul ñu di len jox dig dajja ba suba ak jamm haza wa sallallahu ala nabina muhammad wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين